mbokk yi ñu dem directement rek ci sujet bi nga xam ne moom la mujjee muy photo bi nga xam ne Abdou Top dina leen ko wan léegi photo bii ñu Abdou Top di wat moo jur Assane Coow ci weekend bi ci réseaux sociaux yi def na koog lu tax mu koy def wërtal lëngoogu ndaw si waaj yi wërtal lëngoogu waaj yi ndax nee nañu lu bari lu fi dee ci ay bakkan moom mii ci ndigalam la loolu soqi ko moom Antoine ñu ko koy jiiñ dem ba wax ni itamit am na lu bari ci xaalis Sénégal léeragut nee nañ ña ko koy ji ñu ni lu tax Jibi Njaay kon di lëkkaloog moom bay reetaan ndax lii jar na ko ndax lii Jibi Njaay def jar na li ñu koy wax naan dafa teel ak jaru ko nañu xaar ba leeral. waaw am na solo samay bu Jibi Njaay de wax dëgg yàlla am na droit kottante bu leen neexoon sax mën nañoo fecci ñoom ñaar jàppoo fecci. fecci waaw lu leen neex mën nañ koo def ndax ay ay lañ bokk seenum réew gisante. am nañ droit saafante te yaakaar naa ni euh, Djibi amul dara luñ ko dénk ci réew mi. Mhm. amul dénk lu loo ko mën a wax day ànd ak Ousmane Sonko wala bu protocole la ñu koy la. Mhm. Ousmane doon na sibir ay métit yu bare bare mhm. mii moo nekkoon ministre de l'intérieur. Ah, Antoine moo doonoon ministre de l'intérieur mais Antoine it am na si loo xamante mënu si woon dara. xanaa hmm. nee woon ministre daa war a jël ay responsabilités. waaw ministre yi dawuñ jël ay responsabilités looloo tax ñu liy dal leen di. ministère yi bu fekkoon yu ñu jël ay responsable tey buñ leen santé dañ ne dañ naan ko lii du fi amee duñ la ko ñemee sant sax. moo tax nga xamante ni président Macky Sall moo yoroon di jubbanti di doxal. léegi nag ki nga xamante ni mooy jibi waaw xam naa ni lii leen boole ñoom ñaar du du Sénégal mais pos-pos la xaj na ndax ni may gisee affaire yi dañoo am fu ñu tase woon ci mbirum diine. Mhm. kon nag am nañ droit saafante ndax ñoo bokk foofu pos-pos. mais boo gisee mu naqari ñenn ci sénégalais yi. mooy Antoine dafa jàppoon ni ñoom Jibi Gueye ñoom ñoom waa Pastef mhm. ay terroriste lañ ay raykati nit lañ mhm. ay taalkati réew lañ duñu ay nit ñu baax mhm. loolu la Antoine loolu la jàppoon ñu leen di moytu loolu la waxoon sax faf ñu leen di moytu fépp di leen daw léegi nag kon bu ñu demee ba tey moom mu gis mu songook ñooñu di saafanteek ñoom léegi dañuy war a laaj ki lim ñu waxoon anamu li ñu présenté woon ñoom ak fii ñu mujjee ñoom saafante bi kaf forree kon xanaa ñi nag mais li mu waxoon justice moo ko setal weddi ko moo tax xëy na mu sang mu sonkoo song ah justice moo ne ko li nga waxoon amul non dama ni justice hmm. moo seetalaat ñi jëloo leen seen parti génnee xale yi hmm. moo ne xay na kon bu fekkoon mais ba tey waxam ji moom mi ngi fi mi ngi fi tegee léegi nag bala ñoo woon jibi gay de est-ce que waxul xale yi jibi ci la woon jibi waaw ci la woon tërës kay ñun ñëpp ñu ngi ko ji ñoon ci léegi nag. li waroon li mu waroon def mooy kon mu defaat beneen sortie defaat déclaration leeral taxawaay bi nga xamante ne amee woon ko si réew mi ak li mu doon liggéey ak loolu xewoon ñàkkoon a xam ñoom doonoon a taxoon mu jiñoon ko waa Pastef. Mhm. leeralaat daal bu ko defee ñu mën a tàmbalee kottanteeg moom a saafanteeg moom. Mhm. mais daal am na si yoo xamante ni moom man pour man garaawut waaw bu leen neexee mën nañoo kottante mën nañoo foofu mais sew yi si nekk rek moo xaw a métti nit ñi quoi. waaw mooy bakkan yi waaw biis ba. waaw mais biis yi ñu leen waxoon ak yëpp ni mu mujjee mooy kottanteeg yooyu yëpp xam nga ne benn waay bu génnoon ñu ne man man lañ ji ñoon taal biis ba. Ah, waaw koo xam ne nee taal biis te ba léegi nii mënoo gis ab wala mbokk wala nangam am na si yoo xamante ni moom wax dëgg yàlla euh, gàcce lay doon ci moom doom ah, rek dañuy gis naa ñaata nit xam nga loolu. <laughs> alors kañ nga ñëwee Macky. Hmm? yow yaa laaj ab dëj heure bi <laughs> Antoine man ma gisee naa songoog moom sama yoon nekk ah ah gars yi nag léeg-léeg bu ñu songoo yow dañuy làmb sa sa përëg yi ba xam takk ngay téere ah <laughs> eh, saa waa na nga def làmbaale sa ndigg ak sa përëg yi bu njëkk bu naan tàmb bu naan takk ay noom ba <laughs> gis ko ma jéem a làmb li ma yoon wékkoo gars yi eh, takk kii nga tax léegi ma bàyyi la léegi ana ah, bul wax loolu hmm? léegi geetarootu ma xam na. Ah, léegi léegi da nga koo changé. daa am na yoo ko remplacé. waaw ah. macha allah. waaye eh, yi dañ naan takk ba doo mën a dox. <laughs> te affaire yi gën a tëju léegi xam naa ndomb yi bari naa ne day tëj. <laughs> ku di jël suñu oto ba. wër na takk ay ndomb ba ma mën a dox. dama daan jëw ci saa de. dama daan ñëw ne ko saa <laughs> ñëw man li ma jaaxal oto bi. asat lu ko def ay gàllaaj ba fees del. waaye oto oto bi côté bi asat te gàllaaj yi. côté boobu rek mooy nor. waaw maanaam foofu lañ lay mbëkk rétroviseur bi foofay yàqu ma ne ko adat ma daal affaire jaaxal la ma. ay saa yi alaaji da mën a dox da ngay dongali. ñu ngi koy nuyu moom euh, Antoine fan yii ndeysaan day def tànku neen ca jumaa ji ak naajo nam tàngee yaa ngi gis vidéo yi. Mm-hmm. Antoine di waaxu ca jumaa yi Tuubaa rek. Mm-hmm. waaw ma nga fay waaxu rek. alaaj am na ay liggéey am solo yu muy def de même xel ko mag yëpp de waaye da koy nëbbu moom ndax yàllaa tax muy def nee nañu. ah waaw waaye jot naa ci de. <laughs> jot naa ci mais <laughs> liggéey yu am solo mi ngi koy. waaye daal def ko. Ah, ah, fépp kay lañ lu mu koy def. ay liggéey yu am solo ah, dafay dem di bay. non liggéey rek. ak sasoo am yu muy sasoo di ko def. maam dafay dem di bay. non liggéey rek. xam naa ne bu fe bu noppee bu ñu ko inauguré yenn yeeg wala dara da nga da nga ko gis tabax la mi ngi liggéey de nee nañ mi ngi liggéey lu am solo waaye da da koy def noonu te yàlla tax hmm. bëggul mu siiw macha loolu de am na solo ma ne ko lu baax kay jar naa siiwal ndax ñeneen ñi man cee roy alaaji photo bii la Abdou Top léegi de ab vidéo la jur na coow nag ci réseaux sociaux yi ñu naan d'accord nag d'accord ñu fi réew mi toll ci mitit ak bakkan yi faatu te ñuy ah, loxol Antoine da caa nekkoon ndax boobu moo nekkul ministre de l'intérieur Jibi Gueye Ndiaye mii nekkoon protocole Ousmane Sonko ba léegi warta def ak nii Antoine. waaw eh, mbir mi moom wax dëgg fa yàlla eh, mbir la moo xamante ni mbir mu doy waar la. Hmm. Eh, dégg naa ñu bari génn yëkkati nañ ci kàddu. am na ñoo xamante ni wax nañ ni li Jibi Gaye def euh, même bu fekkente ni naqari na leen mhm. bu leen fàtte ni tamit situation moom moo koy waral réew mi dafa am nu muy doxe mhm. buleen leen fàtte ni le premier ministre Ousmane Sonko defoon na ko président Macky Sall Diomaye moom it accolade na président Macky Sall mhm. ah am na ñoo xam loolu la ñuy wax. am na ñoo xam ne wax nañ loolu ko daal de bon donc. Mm-hmm. Euh, bu kenn jël mbir mi rek bëgg ko yóbbu ci beneen dimension. waaw nga déggaat ci aussi tamit ñeneen daal di ci amaat beneen gis-gis. Mm-hmm. dégg naa ci ku mel ni aussi yoro mm-hmm. mu wax ni Jibi Gueye dafa waroon a xam ni premier ministre Ousmane Sonko bërki démboo njaay dem na building am ñu bëggoon a photo woog moom mu bañ. donc loolu rekk mënoon na ci jàng daal xam ni lii kat waru ko ñu waxaat ba wax ni jotaay bi li ci am noonu Antoine moo ciy bénéficié wu hmm. parce que bu fekkutoon ni euh, Jibi Gueye moom lu ko ci yàqal rek moo ci nekk mais Antoine moom dafa saisir opportunité bi boo seetee sax mbir mi dafa dem ba nuru théâtre mm-hmm. moom ci jëmmi boppam dafa am loo xam ni forcé na ko xëcc ko def ko moom jubluwaay bi xamoon na li nga xam ne moom la ci bëgg mm-hmm. man pour man jibi euh, Antoine dafa dox ci maayanam Antoine mm-hmm. waaw da ko kon vidéo bi Antoine la arrangé waaw moom la arrangé moom la gën a arrangé parce Antoine nag dafa am lu mu xam loo xam ne ji xamu ko. Mhm. parce que tey jii bu fekkoon ne président Macky Sall ne nekkoon président euh, ji bi du nuyu sax Antoine. bu ko jege bu ko sax jege. <laughs> <laughs> comprendre. <laughs> waaw sax du ko def ak bu mu ko mën a fekk. ak ni ñu kottante nii. déedéet du ko jege. ay du ko jege. waaw ndax boo seetloo image bi ci ñoo xam. vidéo bi tey jii suffit ñu changé woon ca pale ba. Mhm. Basirou génn ma dugg rek. Mhm. ji du jege Antoine du ko sax jege. Ah waaw ah. même bu doon sax dem nañ du jege du fa am. mais tey Antoine dafa saisir yëf yi. man damay wax ni nag. Mm-hmm. jibi juum na quoi. parce que mm-hmm. njuumte daf nit bu juumee da ngay nangu di juum nga quoi man pour man juum na. Mm-hmm. parce que man mii wax dëgg fa yàlla. jibi fi mu toll ak Ousmane Sonko ak ni mu toll man Antoine du ma ko nuyu. yow waaw man man doo wax sax yow lu ngeen lu ngeen jot non non alaaji non non <laughs> yow loo Antoine yow de yow da nga <laughs> Antoine bëgg ko seeti yow Antoine non non Antoine di ñëw fii Antoine ñu koy invité ànd ak moom bu ñëw sa bureau nuyu la nga ko da ngeen di kottante eh, day def émission da kon ngay kottante ñu filmé ko partagé ko c'est que waaw mais alaaji ki lu ko dal c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que Antoine waa jënd nga ñëw fii wax dëgg Euh, su ma dee parce que naqari dama ko am mbir mi. parce que nit nit <laughs> loolu ci naqari non daf ma naqari quoi <laughs> parce dafa utiliser Djibi Gueye. waaw euh, bi waaw boo seetloo. da ko moom moo a soxla affaire bi comprendre nga mais dafa am lu jaar ci réew mi. gis nga pareen saa na loo xamante ne waaw non c'est que dafa am lu jaar mais xam nga tey jii saa yi dafa am ñoo xam ne maanaam même bu ma koy pardonné man mënu ko ma ko pardonné léegi quoi. maanaam loolu dafa des ci man quoi wax dëgg fa yàlla. Mm. loolu wax carrément nag su waxee te yàlla rek tax dafa des ci man quoi parce que Antoine man dama ko doon seetaan muy wax damay mer damay am lool lu ma naqari comprendre nga. si mu am ay doxalin yoo xam ni mu ci taxawee benn taxawaay boo xamante ni bii. vraiment dafay garaaw quoi maanaam ñi ko ñi mere jibi ngay yëpp foofu lañ ko meree quoi maanaam dafa am foo xam ne jibi ngay peut-être moom dafa xamut place bi mu occupé ci xolu sénégalais yi quoi. Hmm. maanaam sori na lool ci gars yi parce que dañ ko doon gis ja difficulté bi nga xamante ne bi yëpp moom lañ doon teg Ousmane sonk ñu gis ni bokk na ci ñi gënoon ñi gën a sonn moom ci ni mu doon lijjantee yëf yi comprendre nga nga xam ni ci mbiri Ousmane Sonko rek lay dox quoi maanaam ku mel noonu. Hmm. gars yi bi ñu koy xool xoolu ñuy Djiby Gueye la quoi mais dañuy xool di daanaka hmm. Ousmane sonk moom mooy. akolaatante ak. ak Diomaye mm. Antoine. Antoine loolu la que noonu la gars yi xoolee mbir mi quoi. kon Antoine xamoon na après. coow li vidéo bi def dina def coow. waaw hmm. ah, xam na parce que Jibi Gueye xamoon na ni ñu ngi leen di vidéo sax. te wan na ni maa ngi si jàmm. waaw ah, ah. gars yi dañuy nga xam ne man maa ngi si jàmm maa ngi liggéey boo gisee sax Antoine li muy def nga xam day forcé mi ngi forcé kii bi. waaw moo forcé kottante bi kottante bi yëpp da koy kii. xam naa la jël tànk bi sax. <laughs> daawro na la. yaa ngi dégg tànk mu jël tànk ji bi. waaw parce que boo seetloo xoolal alaaji même yow mi wax ci photo. Hmm. boo xoolee photo photo bi. waaw maanaam Antoine Cote. waaw gis nga c'est que yii ay mbir la yoo xamante ne euh, mbir yi mbir mu doy waar la quoi vraiment hmm. wax dëgg fa yàlla Antoine xam nga dafa am ñoo xam ni sooy bu. Hmm. ñu defee dara ci àddina waruñu cee génnee nii quoi. mais da cee génnagul génnagu ci de. waaw mais c'est que non xam nga génne nii maanaam parce que lii yoon la pour mel nii maanaam nit ki mën na tey mel nii. mel nii ba ñëpp xam ni kii ëllëg mu bëgg ñëw mel nee. waaw loolu la ñu bëgg a wan quoi. Mm-hmm. te loolu waruñu koy accepter. Ah parce que loolu xam nga lan lay indi. Mm. maanaam dafay am ñoo xam ne dañuy wax ne politiciens yi ñoom ñëpp a mm-hmm. yéen. maanaam bu nit ñi di xeex benn affaire. nga jekki jékki gis loolu ñu la doon wax. ne la gis nga leen. ëllëg si biir fii la ànd di añandoog di def kii nga hmm. gisaat. yu mel noonu. nga gis kii maanaam mais mais du ñu ay ennemis ñoom alaaj ñoom du ñu ay ennemis. ah naan ah gis nga ah, yéen ñi si dee yéen a perte de gis bi ennemi de ennemi de hmm. Hmm. bi fi amoon nii nguur gee leen boole woon du woon nguur de. pour man ennemi la. ennemi la woon mbañeel la. ennemi la woon xam ni woote bi ah, mbañeel bu wër la woon barke alxuraan yow nga defe ne dëkk bi demee nii mbañeel la dañ lay buubleeg dóor la laaj dara loolu la Ousmane Sonko wax sànq mhm. bu ko defee adversité nekk lu jëm ci wàllu politique mais mu bañatee nekk mbañeel même haine moo amoon maanaam da nga daan toog yow soño da ngay gis nii am na ñoo xamante ne bi tey da ngay ñëw joxe sa idée mais dañ lay saaga saaga yoo xam bañ la dañ la mhm. maanaam dañ laa bañ mhm. ci loolu moo amoon waaw ah. nga dëgg de nga wax dara ñu ne kii lu ñu xaar ci moom waaw waaw lu ñuy xaar ci moom. amoon ay élément boole amoon ay élément boole sax. loolu nag am na ñoo xamante ni ñu ngi defaat même erreur yi ci ci jamono ji nekk nii de am na ñoo xam ne bii tey ñu ngi ci euh, maanaam daanaka ñoo appauvement mais dañ naan euh, nañu tëj lii wak nañu def lii. ñooñu tamit bu ñu waxee loolu nañu xam ni ñoom ak ñële ñoo yam parce que loolu. du ñoom ñoo ko war a wax kenn warta taxaw naan nañ def léeg nañ def laa loolu nañ tëj ñee nañ tëj man en tout cas moom Antoine Antoine de moom su ma ko meree lenn képp la alaaji muy ñi Eh, profité woon ci xam giñ ko xam di néewal ay doole nit sénégalais ca Touba fële ca Touba. Ah, loolu moom méttoon na ma da ngay wax ak nit mun la dama lay tëj parce que Antoine sama. non loola sax gënoon na tuuti. Ah ndax ñooñu dañ lay tëj nga nekk si jàmm. waaye. non alaaji asan loolu tuutiwul de xaritu Antoine laa képp. waaw dama lay tëj. waaw boobaa ñu tëj la rek ñu ñu tàmbalee lijjanti waaye. fii moom li fi amoon Ndakaaru gii. gis nga <laughs> daal pour tëj li amoon Ndakaaru pour tëj leeral. Mhm. bon xam nga am na loo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla bu ma toogoon nga laaj ba ma jéem koo rafetal hmm. mën naa ko rafetal quoi hmm. daal ne non lii la lii lii lii nañ kii mais bu boobaa damay fen sama bopp maanaam wax dëgg fa yàlla neexuma li mu demee nii quoi vraiment bu boobaa ci loolu laa gën a sentir euh, nit ki nee naa ah, saa li nga wax war wax ne mais kooku moom la concerné peut-être mën na kii mais man wax dëgg fa yàlla hmm. ça ma fait mal nit ñi mu ñu ni dafa war a jéggulu jar na ko. kan Jibi Gueye Ndiaye. waaw man loolu laa gëm ah man dama gëm hmm? ni dama jéggulu wala day tontonte dama gëm ni war naa jéggulu. daa jéggulu wala daa tontu gaa yi. gaa yan. man jéggulu na wala daa tontu gaa yi. da na a tontu. man gis naa am na texte liiraguma ko ma bàyyi ba liir ko ba xam.